mais Pape foo jëlee photo bi. mais man ci dëkk bi laa dëkk man damay kaa comme ñëpp de. mais xam nga ni dama doon supporter démb barki démb. mais mais mais mais mais problème bi mooy. football dagan na walla daganul dafa araam wala araamul. bàyyil ba question yi ñëw. xel ngaa laaj torop. parce que man bi ma la gisee ngay supporter damaa tiit question yi ñëwagul ci dernier waxtaan wi lay ñëw. <laughs> kon kon ma def ko dernière question. puus ko ba ci kanam. <laughs> Pape ñaanal gaynde yi nag yàlla may leen ndam. allah amiin réew non gaynde yi équipe bi. équipe bi waaw parce que gaynde ya nga parc an dégg na pourtant ñun gaynde rek lañuy wax. ah bo ñaanale gaynde yi yàlla day teral gaynde ya ca parc an. seigne Modou bu sa jeng de bam ñaanale wa rew mi bitim réew. këyit mm-hmm, mm-hmm. ñepp am keuyit wallahi tali magi rew mi nañu ñaan. Mm-hmm. parce que ñaanu ñaanu nitu yalla aladi pap yalla duko ko delloo. magi rew mi nañu ñaan. ci équipe bi yàlla may leen ndam. Sénégal pap ñun ñëpp ñoo ko bokk. kenn mënu koo séddoo. bu Sénégal amee ndam ñëpp ñëpp am ndam. foo dem ci Europe ñu ne la sénégalais nga da ngay siggiwaat pap waaye réew moo xam ni bu ñuy bëggee ndam ñuy bëgg defet te ñëpp di yeewoondoo ci même réew. mais loolu problème la mais pap loolu problème la. am na ñoo xam ni ni ngay sonnee di ñaan pour équipe bi am ndam noonu la ñuy sonnee pour équipe bi am defet mais loolu soxor la wala. da ngay yeewoo ci réew mi. loolu la soxor. ah kon kon booy wër koo dëgg mooy ko bañ dëkkam. Fall yaa ngi mais pap koo la booy wër nit ku kon mooy ki bañ réewam ki bañ réewam ki nga xam ni moom moom bëggul réewam. mais pap sa réew da nga koy bëgg. nanu ñaan kub bi yàlla indi ko. yàlla nag boobu ba léegi mi ñuy defal ndam. Hmm. yàlla nag pap li mu bañ mooy ku bàkku. ah bàkku baaxul. yàlla bëggul bàkku. fëgg sa dënn. saa yoo bëggee toog ci 16 am mu wan la ni 16 bi may borom. léegi nga dégg ku naan coupe bi maa ko fi indi kenn indiwu ko fi bu ñëwee nag ku dul yàlla nañu ko bàyyeeg lépp jox ko sunu bopp daal ni ko boobu ba léegi yaa ngi ñuy sagal yow yàlla sag googu yàlla bu mu deñ kenn bañ a toog palaasam waaye bu fekkee ku ma mat si euh, coupe bi ñëwagul ku ne naan nan saraxe mante fres ñii naan nan saraxe zi zi di tax ñii naan zi bisaab mais ñooñu ay borom xam-xam la. waaw d'accord gis naa ne borom xam-xam yëpp a jóg ku ne di joxe. sarax sépp <laughs> di joxe sa xalaat sarax sépp buñ ko defee nag Pape damay ragal keesu budget bi daanu. liñ bëgg a génnee lépp ci sarax nanu ñaan rek kenn bañ a bàkku ni maa fi indi coupe bi wala ci sama sarax ci la yàlla nangoo ba indi coupe bi déedéet nanu xam ne daal yàlla mi nuy may jugu fi nanu ko tàllal suñuy loxo ni ko yàlla daal coupe bii yàlla na ñëw Sénégal ci daraje Seydina parce que yàlla moom loo ko ñaan mu may la ko moo ko wax ud'uuni astajib lakum mais pourquoi des fois ñu am impression ni euh, liñ koy ñaan daf ñu koy yéex a jox Pape mbaa xam nga ni yenn saa yi mën ngaa ñaan yàlla dara nangulee nangululee ko fi nga ko bëggee mu may la ko ci leneen dégg nga wax da nga naan yàlla may ma xaalis du la may xaalis mu changé ko may la wér-gu-yaram nga waroon a feebar ci février bi mu dindi ko feebaratoo fekk la nga ko ñaanoon la remplacer ak feebar bi maanaam da koy remplacer ak li gën leneen kon loolu moo tax mag ñi buñ dee ñaan dañ naan yàlla na yàlla na la jig yàlla maa ngi lay ñaan li nga may may yàlla na yàlla na ma jig te yàlla na gën ci man yàlla na gën ci xayrun min nii mooy li may ñaan yàlla na gën ci man di ñaan alal bu alal ji ñooy dem barzaq kat pap alal ji gënul ci yow di ñaan yàlla kër te bis boo amee kër dem barzaq kër gi gënul ci yow. di ñaan yàlla tukki te boo tukkee dootoo ñibbisi gënul ci yow. booy ñaan yàlla da nga ko naan yàlla lii ma lay ñaan su gënee ci man yàlla yàlla nga ko def. waa léegi moom lu tax du joxe li ñu ko ñaan rek ñu am remplacer ak leneen. la la dafa am problème wala c'est quoi c'est quoi le moom luy problème am. <laughs> may ma xaalis bu remplacé ko ku wér ku yaram du la may xaalis ak wér gu yaram rek. mais yenn saa yi mu gis loo gisul. parce que ku généreux yàlla la gën a généreux. mais pap yàlla wax na ci alquran ni bu ñëpp amoon xaalis. walaw basata allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi. yàlla nee na bu ñëpp nekkoon milliardaire ci ngay gis réew mu réew mu fuuy. dëgg la de <laughs> kon du baax ci kenn. yàlla ko wax de. walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baxaw fil ardi yàlla nee na bu ñëpp nekkoon multimilliardaire ci ngay gis réew mu fuuy kon moo kon kon kon loolu moo tax mu def inégalité ñii yor ñii ñàkk ñii ñàkk sa frigo paan nga woo nit mu dépanel la ko nga fay ko sa foos fees nga woon nit mu videel la ko nga fay ko mm-hmm. sa kër nga bëgg a pentur woo pentur kat woo ko mu pentur nga fay ko mm-hmm. nga soxla oto woo ko mu yóbbu la nga fay ko mm-hmm. yii yëpp bu ñëpp nekkoon milliardaire kenn du ko def ku ne sa kër ngay toog aj mbagg mhm. moo tax yàlla nee na ma séddalee àdduna noonu comme ni baaraam yi wutee mhm. yii njool yii gàtt mhm. yàlla nee na noonu laa séddalee àdduna ba ñii am ñii ñàkk ñii am ñii ñàkk mais taxul ñi am gën ñi ñàkk bu dee ci cadre ngëneel moom ki la gën a ragal yàlla rek moo la gën alaaji pap mais ku la gën te ragal yàlla gënu la ki la ki la gën ki gën a ragal yàlla mm. moo la gën pap xamoo ni ngëneel nekkul ci juddu giwal gënul giir de. parce que juddu moom voilà ñëpp a fa yàlla. giir gënul tëgg. ñëpp a yem ca yàlla. kullukum min aadama. wa aadamu min turaab. ñëpp ci maam aadama lañ bàyyi ko maam aadama ci suuf la ko yàlla bind ci man kon pap la muy tekki mooy ngëneel nekkul ci xeet. ki la dàq yàlla. gën laa ragal yàlla. gën laa sell jikko. kookoo la gën ca kanamu yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum mhm. yàlla nee na ki ma gënal ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla mhm. ngëneel nekkul ci judd mhm. nekkul ci askan nekkul ci famille yàlla gënalul famille bi suufeel famille bi mooy li may wax bis bu nekk yenn saa yi ñu gaafal nit mel ni yàlla dafa bind ay nit ñu ay gaaf déedéet loolu amul yenn saa yi ñu ne la sa jabar jii ba nga ko takkee ba léegi say mbir daa dellu gannaaw dafa tombe gaaf moom ah, eh, gaaf aada la aadala bu fi sénégalais yi indi. du diine du diine pap mm-hmm. yàlla bindul nit ko ay gaaf maanaam koo xam ne dañ la naan boo duggee ci moom da ngay dellu gannaaw. Mm-hmm. xam nga ku daawul yéeg jakarta mm-hmm. takk deuxième femme yéeg jakarta daanu ñu ne ñaareel bi la. <laughs> jigu ko. <laughs> ba mu ca duggee la dam <laughs> gaaw nañ ci de. ngay xëy suba. Mm. ne man commerçant laa su ma dajeeg jigéen laay gën a jaay dangaa bëgg jigéen rek. waa mais mais mais mais mais mën nga taseek aussi ku ku seeni wërsëg ànd. pap na nuy dund alquran ak li nu alquran wax fan la alquran wax ni booy xëy dajee la góor moo gën ci yow yenn saa yi nga daje góor xëy mu dëgër nga naan ba ma xëyee suba yam ci kanamam gi laa xam ne du ma soqeeku. mais Fall loolu ay porte bonheur la ay jour porte chance am na ñoo xamante ni xëy taseeg ñoom da ngay umu c'est loolu bu amoon yàlla bind ko ci alxuraan ne ñii bu ngeen dajeeg ñoom seen wërsëg day ubbeeku ñii bu ngeen dajeek ñoom seen wërsëg day tëju. mais ku xëy li nga war a am ngay am boo xëyee suba li nga war a am yàlla nome na ko démb tey soog a ñëw jiitu na sa judd loo am rek tey ci journée bi sa wërsëg la loo am suba sa wërsëg la waaye kii laay dajeel mooy ubbi sama buntu wërsëg wala booy jaay naa dem ci diw mu njëkk a jënd ndax bu jëndee ci la njaay mi di dem mais yooyu ay aada la rek sénégalais dañoo gëm aada. dafa bari yu nu dugal ci diine ji yoo xam ni ay aada la du sharia. yu bokkul benn yoon ak diine ji. ba ci ngay takk jabar sax ñu solloo la sabadooru kese ni la toogal aada la. binduñu ko fenn. déedéet. ah bon non non. amul mais aada bu baax la. fan lañ ko bind pap waaw mais aada bu baax la. nan la baaxe parce que xam nga euh, euh, euh, diine aada da ko fee jiitu. waaw bi diine ñëwee mag ñi ak seen mbaax jël yi baax ci aada bàyyi ko. mu xaw a dilué wu ak diine ji ay mbir yoo xamante ni xel ma na koo nangu. mais pap ñun daal téere bi nu yàlla yónnee. muy alquranul karim. lépp lu ci nit ki war a jëfandikoo yàlla wax na ko yonent bi lu ci nekkul rek mën na nekk aada. parce que dañ ne bu tàkkusaan jotee booy takk dangay ngay sol sabadoor kese. toog bàyyeeku. waaw ba keroog ñu naan la fas nañ sëy bi. mais amul ci alquran. gura gii ñuy séddale ci jàkka ji ñëwul ci charia teguñu ko fenn déedéet ah bon mante fraise géeg lépp teguwul fenn ah dafa bari yu am ci diine ji yoo xam ne bokk ci mm-hmm. aadala nag mm-hmm. mbaa xam nga ni suñu takkee jabar ba pare bu la neexee seddale euh, gerte caaf mm-hmm. bu la neexee beñe dugub lu la neex loo sentir bu la neexee mboq bu dee jamonoy mboq la bu la neexee takk ba pare ci jàkka ji séddale mboq gura gi du obligatoire siiwal la bëyu bàyyi amul ci charia yenn saa yi nga dégg ku ni bëyu baay bi na génn bokk ci 1000 francs imam wala 2000 bilaal <laughs> bokku ci bilaal bi ci bëgg 2000. 2000 bilaal bi. non Sénégal nag dëkk bu neex la. yooyu yëpp bokkul ci charia Sénégal yàlla na gudd fan. te ànd ak wér. <laughs> réew. <laughs> bëyu baay. bëyu baay boo xam ni pap bu ko bàyyi jëlee bu sëy ba amee problème ñu ne la demal arrangé nga ne du ma fekkee fu ñuy tasee sëy. guro bàjjan. fàllare impañ. dëgg la de man nijaay ya ñëwoon sama kër naan jan baat bi prate bagage et mois <laughs>